waaw waaw nee naa la sëñ Modou borom jaaro bi yegg si na moom li nga xamante ni bu yeggsee dafay daal di neex jaaxle jeex ci réew mi ak bitim réew sëriñu lasaar la nee naa leen seet bu gaaw seet bu wóor sëñ Modou borom jaaro bi da koy def nee naa leen moo ci mën wala li nga xamante ni mooy li saxaar da lay wax li nekk ca kanam ak li nga xamante ni moom nga paas nga xamante ni da nga bëgg bayre bu saf sàpp bayre xaalis foo toog am li nga xamante ni mooy xaalis nomba karange ak li nga xamante ni mooy tul mën a am li nga xamante ni mooy assurance baas moom sëñ bi da ay defar waaye yow mi nga xamante ni dangay bëggante nopp ñaari nit yi nga xamante ni dañoo bëggante lool ba jéggi dayoo sëñ bi day liggéey li nga xamante ne mooy nopp ci nu mu gën a gaawee waaye yow mi nga xamante ne da nga bëgg tukki tukki tëla fu nekk nga dugg fa di la jënd li nga xamante ne mooy papier ñëw si sëñ ibbeeku bëgg li nga xamante ne mooy bayre foo tollu gars yi wër la nga yor place ak foo ti nekk yow mi nga xamante ni da nga am faiblesse sexuelle la mënuloo sa soxna dara amee hémorroïde interne wala externe wala bu feeñ bi dañ xamante ni mooy bor kenn mënu la kaa fay xanaa ak sëñ bi moom mën moo ëpp doole nee naa la sëñ bi benn sëriñ la nee naa la sëñ bi mooy borom jaaro bi nee naa la jaaro la ci biir jaaro yi képp ku jëflanteeg moom nee naa la sungufam benn sunguf la ci réew mi sëñ morom borom jaaro bi ndaanaan la ci biir ndaanaan टाइफ करो ने nekk ci Grand Yoff en face hôpital CTO Taïf Karo nag Jibi Bamba mooy gérant bi ah mbokk yi Touba Taïf Karo nag kenn dootu leen ko présenté ci biir réew mi lépp loo doon wër ci wàllu karo yu baax gaawal gaaw ñëw ci suñu biir place bi di Touba Taïf Karo nga mën fi fekk ay karo italien karo espagnol wala karo indien ngeen mën fi fekk ay karo poli 1 mètre pour seen ay salon wala salde de ngeen mën fi fekk ay karo décoration yu amul fenn ay carofeyeuse pour seen ay cuisine wala seen toilette ay grès poli 60 60 ay plinthe wala ay baguette ba ci ay caro parquet lépp am na ci biir Taïf Caro ay caro espagnol 60 60 wala 40 40 marche escalier wala contre marche ah mbokk yi lépp loo soxla ci wàllu matériel sanitaire gaawal gaaw ñëw fii ci Taïf Caro li ci gën a neex mooy Taïf Caro defal clients yi promo boo jëndee caro yooyu dem ci kër gi yépp fii ci Taïf Caro nee naa la matérielu sanitaire. Air ñoo la koy offrir defal la ko cadeau muy 16 anglaise lavabo ba ci lépp luy taaral salle de bain waa Taïf Karo dañ la koy may moo xam kër gi nekk niveau 1 niveau 2 wala niveau trois Taïf Karo nag am nañ beneen place bu nekk fii ci Cambérène ah sama mbokk yi yéen ñi nekk ci diaspora bi am seeni sànca fii ci Sénégal bëgg a karole seen kër ba mu mucc ayib adresse bi fii dong la ci Touba Taïf Karo gaawal jël suñu numéro téléphone 77 745 76 88. 88 wala 76 923 33 85 ak Touba Taïf Karo ñooy number one ci wàllu jaay karo. salaamaaleykum internet yi seetaan. ñu siyaar leen bëggwaat leen bu baax a baax a baax te ñu doxantuwaat fii ba diwaanu Touba Mbacké seet siwaat kan nee naa leen bu doon mbër ñeme naa yëkkati loxo bi ne mooy roi des arènes ndax dafa am lu ma waxoon ma tek ci sama bot mu waxat ma ma tek ci sama bot mu won ma ma gis muy serigne mam gor jenn di set ci mam Cheikh isa jenn jambaru Cheikh Ahmadou Bamba khadim rasoul bobu te ñu ñew set ci wat ko bëgg a waxtaan ak mom ci xam-xam waxtaanaat ak mom itam ci walum set walum kayit inshallah rabbi dañ koy bàyyi mu nuyoo rek ñu doog a xuus ci waxtaan bi sëriñ maam Góor Diène ñu ngi lay nuyu bu baax yaaram. waaw ah, sëñ Moussa ñu lay fay bu baax. Mm-hmm. salaamaaleykum wa rahmatullah. Mm-hmm. sëñ Moussa maa ngi lay nuyu di la seera bu baax. Mm-hmm. di la jox sa wàccuwaay di la ko sàkku ci yow. ci nuyu bi siyaar bi sëñ Mountakha Bassirou. xalif général di ko ñaanal mu yàgg fi loolu ànd ko wér. ak mboolem xalifa général yi nekk Sénégal yëpp rek bàyyiwuñ kenn. di ñaan yàlla def jàmm Sénégal def ko ci àdduna bi yëpp. di siyaare soppee xarit am na jàmm yëpp rek ñu ne ci biir réew mi bitim réew yëpp ñu ngi leen di siyaare bu baax a baax a baax waaw di leen ñaanal baax yàlla defal ñu tawfeex ñun ñëpp ak mhm. jërëjëf jëm ji ñu toogal tey jëm ju yéeme la jëm ji ñu toogal tey bu la seetalee ba wax la li nekk ci yow kenn du ko sikki sàkka euh, dimanche weesu samdi sax laay wax dama ko woo ne ko seetal ma ko mbaatafaatin ak bala gay dee mu ma ah Moussa yow de sama way nga mais lima gis ci combat bi de baxul ma ne ko a ah, mu ma day am ndam non la fa demee sëriñ bi mama bobu ngay wax loolu lan nga gisoon ci combat bi ba ko ci sa set ne balagay de day am ndam mu musa nonou wa seigne Moussa combat bobu non yakarna naa dañ cee njëkkoon waxtan hmm suma jumul sax yow bu xamna faté nga ko. deug ah te date ba bañ ko jàppee le 21 juillet. waaw fàtte nga xam naa nag. Mhm. waxoon naa la bu yàgg ni mhm. la boo ma ne bu ñu jàppee date bi mhm. la Balla Gaye day daan day daan tafaatin na am na da koy daan. xam naa nag boobu du a gëm. dëgg la bi demaatee dem dem dem nag ba combat bi des euh, le 3 juillet micto mercredi mm-hmm. date bi bindoon naa ko ma seetaat ko mm-hmm. bi ma ko seetaatee ma gis foofu dafa am fa taxawaay bu baax mm-hmm. ma waxaat ak ma ne ah dafaa taxawaay bi tey tey baax na baax na fekkoon des combat bi tey wala suba mën am ndam dëgg la waaye nag man la nag làmb na nekk loo xam ni bala moo gën a leer dëgg sa suustu dëgg nga bàyyi ba combat des benn fan dëgg la wala ñaari fan nga doo koo seet boobu boo mënee seet loo ca wax si kàttanu suñu borom da mën naa mën naa sax dëgg la mais boo ci teree waxee mën ngaa daanu bi ñu demaatee ba combat bi des euh, benn fan ñaari fan. Mhm. yow sax ci yaakaar naa samedi nga jëggante. dëgg am na ku ñu wax koo xam ne maa bañ a tudd ajuma la ma wax ajuma. ajuma ma ne ko combat bi changé na de fekk waxoon naa ko ma am mhm. mhm. ne ko waaw après ci laa diggante ci samedi bi. nga woo man la ah, combat bi changé na de. waaw changé changé na. boobu nag fi ko tegoon nag mooy ñun suñu xam-xam lépp ci xam-xam lañ ko teg mhm. man du ma seet ma xool ci ko ëpp ko ëpp ko ëpp doole mhm. du ma xool ko ëpp mbooloo mhm. du ma xool ko nit ñi gën a bëgg la man sama seet li moom rek laay wax boo bëree yaaw jaal sax tafaati sax ma xool yaaw jaal dana maanaam yaaw jaal moo daan wax dëgg yàlla bi ñu ko seetee nag gis ne Balla dee daan ah ñu wax nañ ne Balla dee daan waaw foofu foofu lañ ko tegoon macha allah yaakaar naa tamit loolu du du benn combat combat presse di jàll di barki démb rek. Mhm. man nag damay bañ a tudd tur. dëgg la mais rek ku seet si presse rek. xam na ma. waaw baax a baax a baax. macha allah wax dëgg yàlla. acca mu ngi noonu wax dëgg fa yàlla leer na nañ waaw eh, sëriñ bi eh, dañuy dem rek comme wàllum seet. Mhm. wàllum seet la ñuy commencé suñu jetaay tey. Mhm. ndax wax dëgg fa la ñu may woo naan ma sëriñ maam góor jën seet bi ma seetal wax na ma ci lu leer dafa melni ni ki def ma xam mm-hmm. wa serigne mam gor ci set bi ndan ngay sété kurus wala peta wala ndox wala suuf wala lan ah, serigne Moussa set moom wax deug yalla mm-hmm. ñi ngi sant yalla bu baax a baax maanaam mm-hmm. ah, du ma bàkku du ma du ma réeréeru waaye loolu ma ñi ma mën a ñi nga xamante vidéo bi seetaan image bi yaakaar sama téléphone suma jëlum suma jëlum téléphone bi nii man na ko jël solo neexon ma gënay vocal nga deg ñu tek ko nga deg nga xol wax deug yalla ñima jowo set lo ma de xamuma len Mm-hmm. am na ñoo xamante ne seen bii ci ma gisee woo ma mm-hmm. am na ñoo xam ne xamoon naa di naka jekk mm-hmm. waaye képp ku ma seetal ba noppi da nga naan ma alhamdulilah macha allah sëñ bi da yow daa mel nag maa seen seen tur yaay a dafa ñuy tawfeex wax dëgg yàlla seet boo xam ne moom nit du ma nit woowu ma ni ma seetaloo ma ma seetal ko mu ne ma gisuma ko mhm. du ma ne du am de mais du yomb de mhm. waaw ndax wax dëgg yàlla seet bi wér na mhm. te yàlla def nañ ci tawfeex def nañ ak ubbi ko ak fatu bu baax a a baax ba képp koo xamante seetal nañ la ci maanaam dañ lay wax lu leer nañ defal la ci tawfeex bu baax a baax jërëjëf a naa ñi seetaan bala ma gënoon ne émission bi day nekk direct bu nekk émission bu ñuy woote nga xool bàkk alxuraan karim ñu bëri den la woo ne bii de mm-hmm. maanaam li mu wax ni man seetal na ma jaar naa ak moom fi ak fii te xaw ma leen te kenn tamit mu musee woo musuma cee woo mm-hmm. ma bañ laa jël wala may mm-hmm. kër nga ñëw toog nii fii nga toog suñu kër la yow nga baax si soxna sànq mère doxuñu ci tappale xam nga nag booy wax ci internet dañuy jàpp ni ñëpp dañoo yem mais ñëpp yemuñu am nañu baax mi am nañu jubadi waaw noonu la demee mu ngi noonu noonu la demee nee naa leen sëriñ maam Gor Dieng mm-hmm. nekkul ndakaaru di luyee ay appartement teg fa mat laa rek ku mu jëflanteel daw dem mm-hmm. keram nga koy fekk mu ñaanal la ci keram nga fekk fi ay njabootam ay waajuram ak i mm-hmm. mu ngi fii nii ci diwaanu Touba Mbacké numéro téléphone bàyyi noonu ci ci écran bi ngeen mën ko ci woo sëriñ maam Gor dañuy ñëw rek ci waa ji nga xam ne dafa tëju am ay jafe-jafe ubbeeku. Mm-hmm. kooku nan ngay jëflante ak moom. waa ki nga xamante ne dafa tëju am jafe-jafe ubbeeku ni ngay jëflante ak moom maanaam mooy première chose bi mooy da ngay koy seetal ba pare. seetal ba pare. da koy seetal ba noppi ndax ah, nit bu tëjoo xamoo la ko tëj. Mm-hmm. xamoo lu lu gàllankoor ay mbiram. Mm-hmm. da nga war a seet xam lan moo tëju wërsëg bi lan moo tax liggéey bi doxut. lan mooy gàllankoor bi. waaw bu fekkee ne seetoo ko da ngaa nit ki daa ñëw tëju rek nga bind ko saafara jox ko ni ko sangul. bu ko sangoo mën naa koo sangoo mbaax mais bu fekkee xamul saraxee mhm. mën naa am gàllankoor mën naa bañ baax dëgg tax lii fi nga gën a sukkandikoo sëriñ moom boo bëggee xam boo bëggee am xam-xam dëgg mhm. boo bëggee li ngay def mu leer dañ koy teg mhm. ci xam-xam boo ko teg ci làmbatu boo ko teg ci tappale bu ko def ci bu ko teg fenn da def lépp lépp seet moo koy wane seet waaw nit ki soo ñëwee daa tëju boo ñëwee boo ko seetalee mhm. carrément da ne ko yow sa daa tëju da koy xam dëgg fee sarax yi muy laaj mhm. da koy xam pour mën koo génne mhm. sangat yi mu ko defal nga defal boo ko defalee si kàttanu yàlla bu ko defee rek day gis mbërëm day daal changé léegi léegi waaye moom nit moom du tëju rek ñëw rek nga bi ne ko saaf ñu ko demal nga sangoo ko boo ko sangoo tamit du gis dara ba pare dafa am heure bu ko war a bind dafa am heure bu ko war a sangoo ndax da nga topp biddiwu nit ki te loolu su ko nag ci làmb da ngay dox waaw moo tax boo bëggee tëjee ko da da ngay dem ku seet ku mën a seet seetal la daanaka sax bu la waxee sarax sax boo ko defee rek mën ngaa bañ a sangu sax nag boobaa waaw muy muy noonu mhm. moo tax wax dëgg yàlla wàllu wàllu wàllu ubbiku moom mhm. képp ku yàlla nga am te jute am jafe-jafe boo ñëwee li ñuy njëkk a mooy seet ba pare mhm. waaw xool ba xam yow lan mooy sa jafe-jafe lan mooy sa gàllankoor ba pare mhm. ñu doog caa jublu ñu doog jublu waaw mu ngi noonu kon gars yi numéro noonu ci écran bi daw ngeen ñëw ngeen woote eh, sëriñ bi dañuy dem itam ci wàllum sarax Mhm. ndax eh, dégg naa ñun ñu bari naan sarax am na doole lool ci doomu aadama mhm. ndax nit ki lan la war a saraxe wala dafa war a dem xoollu boo xam tabiyaam boo mhm. xam bidiwam lan la war di saraxe moom muy gën a sarax wala dafa war di dem rek ci bitik ba di jënd ay soow ak mbuus di saraxe wala sarax moo demewul noonu sarax dëgg boo ko bëggee xam mooy da ngay dem ñu ko xamala sa tabiya xam sa bidiw xam sa yaa ngi xam buruju bi ba fay xam heure bi heure bi muy génn ak su ko fe bu fekke xam nga yoy xam nga tabixa bi xam burju bi xam rawahan bi mhm. xam manam heure bi biddiw bi genn manam mhm. da ngay xam daal di xam kii lii mooy saraxam waaw bu boba nak fekke topé lako noonu da kay wax da ngay koy wax li muy saraxe wax ko ci ban heure la ban bis ak aussi day am bis tim bis bis bi nga wara a am bis tim aussi bis mhm. waye neeku ni bis bu la neex nga saraxe neeku tim aussi heure bu la neex nga saraxe dafa am ay heure dafa am ay bis ku nekk am nga bis bo wara a saraxe am nga ci bis ba tim am nga ci heure bo ci wara a saraxe bu heure ba jalé jàllee waratoo saraxe même ba ci sangu safara sax ci bis bi amna bis bo ko wara sango mais aussi am na ci heure boo ko war a sangoo ci bis bi mhm. su bis bi xasee rek boo ko sangoo rek mën ngaa mën ngaa mën ngaa perte dëgg moo tax sarax lu am doole la loolu moom dëgg bu wér la mhm. wax dëgg yàlla waaye nag du nekk ay làmbatu rek kasaw kasaw da koy teg ci lu leer naañ xam-xam bu xam ni ki carrément lii mooy biddiwam mhm. lii mooy saraxam boo ko digalee bu ko def rek yàlla na koy defal tawfeex li muy lépp lu muy bëgg rek mën nay sotti sax du sonn mhm. mais nag bu fekkee xamoo ko nag mhm. dafay xaw a jafe dëgg la mais waaye nag problème bi problème bi xaw am ci côté benn boobu mooy mhm. dafa bëri façon seetin ndax da dem ci sëriñ sëriñ bi ne la yow tabixa naari nga kii mun la xawaa nga kii mun la ma yu nga kii mun la turaabi yu la lan moo waral wuute yooyu wuute yooyu li ko waral mooy façon seet yi ñoo bëri waaw façon seet yi na ñoo xamante dañ naa da ngay jël sa tur yow sa tur ak sa tur yaa kese. Mhm. nga boole ko. Mhm. soo ko boolee léegi am na lim boo am na am na noo koy wàccee. Mhm. bu desee bu desee chiffre sangam yow naar yu nga. yaa ngi dégg am na ñoo xamante dañ koy xool ci ramlu ci ramlu. bu ñu ko xoolee ci ram am na taxawee. te ca lañ mën a xamee sa lan la. na ñoo xam ne dañ koy xool ci course bi bi yore course. xool ko foofu bu ñu ko xoolee foofu daal ne yow nangam nga. léegi loo ma war a léegi moo loo ma war a maanaam wuute gi di bëri am na ci yoo xamante si nag wax dëgg fa yàlla maam wéerul 100 pour 100 Mm-hmm. dafa nekk xam-xam boo xam dañu ko fay fekkoon suñu mag yi suñu mag yu baax yi suñu mag yi ak ñu baram xam-xam yi yenn yi bind na ko ay téere mm-hmm. am ñu ko jël di ko sukkandiko mais nekkul lu wér 100 pour cent mm-hmm. loolu moo tax nag lu bëree bëri wute gi am waaw loolu moo tax waaye fi ne biddiw moom ak tabixa li ci gën a wér da gën a wóor dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg mooy nit ki date bi mu judd date de naissance am ak bis bi mu judd mooy li ci gën a garanti gën gën a wóor waaw moo gën a wóor mais bu weesoo loolu nag mm-hmm. am na yeneen façon sukkandikuwaay yu ñu koy sukkandiku am na yoo ku nekk duñ bokk liñ gis loolu tax mu am différence mm-hmm. te am na ci yoo xamante ni dañ koo jàpp te wérut mm-hmm. loolu moo moo tax mu am différence boobu noonu. moo am mu tax mu am différence jërëjëf sëriñ bi leeral na wàllum sarax leeral na wàllum seet. moo tax ñu xam ko. <laughs> Ah. sunguf bii nii. waaw pour nga pour ma wax la ne xam-xam man xam buur laay mhm. bu sungufu xam nga sump gu nekk ci xorondom. sump bu nekk ci xorondom. da koy dégg. waaw sump moo nekk nii. dama ko ko nëbbu ndax. nañ ko defé ak lañ ko war jëni jënd xamul do ray xamoo ko tey dëgg la de waaw ah, bu fekkee xamoo ko taxul nga gis sumbu nga nekk xam nga dem dag dé boko ko du sotti dé dafa am bis am heure waaw am luñ koy jëndé waaw léegi nag soo ko fekkee xamoo ko nag mënoo koo jëriñoo dëgg la de waaye lii sumbu ne ci xorondom hmm boko démé lay ko ci pulaar yi ba mhm. nga lay ko séeréer yi mhm. xam nañ ba xam mëna ubbi ko may na bari wala mënu ko ma sha allah ah bo démé sumbu nekk da nga fay fekk ay xorondom xorondom bi dañuy bari mhm. dañuy dem ak dikk dëgg la ni ñi dem ak dikk noonu soo ko ubbee soo nga yé place place non noonu lay dox noonu nga amé client muy nekk lu sangal bo xamni wax wax yalla ma sha allah dal man sama balaa ko essayé mu ni yow garanti na man nga ko génne di ko wane fii nii képp ku tëju daal nga bëgg ubbi nga bëgg xaaliss bismillah ñëw nga la ñëw nga xol ko xol ñëwal ko ñëw nga xol ko mo ngi nonu kon sangat bi amna solo lol lol lol gaay yi ñu mhm. gis fi itam ben saaru kanara ak ben fas bu nekk fofu ci kaw taabal bi lol ci lan lay yëngu wa bu dé fas ni hmm fay yëngu ci walu noob noob waaw noob waaw mhm. ñi nga xamanté ci manam goor ñi xam gis bëgg ko mhm. bëgg mu bëgg leen ci mo ak wala mm-hmm. ñu bëgg ko takk soxna mm-hmm. fas gi ci loolay dox mm-hmm. waaw loolu loolu mooy mbiram boo ko fasee fas goo xam ne di gànnaaw fasu jóoni yéen fasu rapide ah man nag samay ñaan damay fekk du ma faral di wax ay ay ay déreg yooyu waaye wax dëgg fas gi moom fas la goo xamante si ni fas gu tubaarikàlla la boo ko fasee nga def ko ni nga ko def Mbàkke borom Touba Mbàkke jigéen nga ko defal nga def ko góor loo ko wax day nekk sa ginnaaw loo bëgg da koy def mhm. loo ko tere mu bàyyi ko dëgg la fas gu wéer wéer gu peng la mhm. maa ko jël am ko gëstu ko def ko ba gis ko ba jarbu ko mhm. man lépp lu may wane Sëñ Moussa ma koy jarbu dëgg la lu ma jarbuut lu ma ko nu nga wane dëgg la fas gi ki ma ko defal boo bëggoon mën naa la wan audio léegi nga gis ci xale bu jigéen boo xam ne def na ko ko defal naa ko ko xale bu jigéen daa topp di di ndaw si di ko di di ko woo bu njëkk mhm. waajo daka daan woo ma koy fontoo mhm. mais daa dem bu mujj xale bu jigéen mooy topp waajo moom day nii moo ci aay allah rabbi mais kuy caaxaan bokkul de. déet man moom dama dox ci ay caaxaan. <laughs> waaw waaw ah, su ma ñëwee soo ñëwee. waaw. bu fekkee ay caaxaan moo tax a jóg. Mhm. du ma yëngu ci ay caaxaan. dëgg la du ma dox ci ay caaxaan. Mhm. ndax nit ku nit ku baax laa. Mhm. bokk ci fa bu baax. xam lu baax xam lu bon. boo xamee lu baax xam lu bon nag ni mu jël lu baax. waroo jël yenn yi nga xam ne caaxaan yi. yi xam ne baaxut nga ko xam day caaxaan. macha allah booba bu mu ca def yi ñaar yéen a ko bokk yam Mm-hmm. day mel ni nga amoon amoon jaas jaa ko ab sàcc rek comme ci góor mm-hmm. yàgg moom yéene ci bokk yéene ba soo amee dix nga am dix kon xam-xam yi tamit képp ko jël di ko defal ñoo xam mm-hmm. wax ma lu ma waxee loo ah ma defal la bu fekkee ndax am na ñoo xam ne dañuy fo dëgg la moo tax loolu lu xel la ah inshallah rabbi allah eh, ñu dem ci kanar bi buñ dendal mhm. wa kanar bi tamit manam mom lolu ko taxaju kanar mhm. bi ana kanar la wax ko walu jigen la jigen ko jigen waaw ana ko jigen wala manam it demul ci jigen kesse mhm. aussi ni boy liggey nek ci pass liggey nga bëgg ki nga nekkal jox la bop ba tey moom ci la nekk wala maanaam nga bëgg dara ci nit muta la ci la bokk waaye daal li tax ni ko nit ñi gën a wu nag mooy mooy nopp noob waaw ah, mooy nopp nga gis ak jigéen bëgg ko mm-hmm. bëgg mu topp la mm-hmm. kàndara bi nga ubbi nii nga wax sa tur ak turam mm-hmm. ñaan ci li ngay ñaan def li ci tëj ok boo ko defee bu soobee yàlla fii <laughs> ay caaxaan du leen tàqale de wax ay caaxaan sax man taxuma def ko nag macha allah boo bëggee dégg-dégg caaxaan sax taxuma def lii nii dëgg la soo ko ci kàttan suñu borom ay caaxaan du leen tàqale dëgg la fii ak tijji woo ko maanaam taxuma macha allah waaw moo tax kànnaar la boo xam ni mm-hmm. képp koo xamante yittewoo na la te ngay nekk ci dëggu nag moo xam mm-hmm. bekkee ab diggante la wala koo mm-hmm. bëgg a takk te muy lu wër loo xam ne yu ay fo ñu mu laa ko defal mais képp koo xam ne ngay jaaxaan moom day ba nga seeti keneen xam ne duñu la ko defaral te boo ñëwee nax ma tamit nag du yomb nag ndax li tax mënoo maa nax mooy mhm. yàlla ñu defal tawfeex dañu mën a seet macha allah la boo ñëwee toog ma la seetalee lépp lu ne ci boo may wóor ba nga may nax dama koy xam kon kenn du ma nax pour nga nax ma du ma ne nax nax waaye du yomb de mhm. waaw moo tax kànnaa bi tamit ci wàllu noob lay dox dëgg la waaw képp ku bëgg jigéen daal bëgg mu topp la mhm. bisimilah boo ñëwee incha allah rabi saxol den sedd ci kàttanu yàlla. voilà mu ngi noonu fas baa ngi fii kanaar baa ngi fii ñaar yëpp a ngi fi waaw ñaar yëpp a ngi fi numéro baa ngi noonu ci écran bi mën ngeen daw woos yi euh, sëriñ maam goor Dieng nekk ba diwaanu tuuba Mbacké. Euh, sëriñ maam goor dañuy ñëw nag ci wàllum bitim réew balaa ñoo ñëwaat ci taabal bi. Mhm. Euh, suñu mbokk moodu moodu yi bëgg ay kayit. Mhm. bëgg a magal si. Mhm. mu teleen waaw. waaw foofu tamit sëñ Moussa maa ngi nuyu bu baax waa waa France. Mhm. di nuyu ñi xam ne xam nañ ma nekk France. Mhm. nekk Italie. Mhm. nekk Espagne. ba ci nekk ba nekk Amérique am na ñoo xamante wax dëgg yàlla mhm. fii lañ ma gisee mhm. woo ma mhm. seetloo ma seetal wax leen loo xamante ne ñoom ñëpp nag maa ngi nuyu di leen baax a baax di la ñaanal jàmm di la ñaanal sutura bu baax baax képp ku nekk képp ku mu ci mën a doon ci ñoom rek lépp loo fay yóotu ca réew ma nga nekk yàlla na saa defal la ko defal ko mboolem Sénégal yi mboolem jullit fa nekk yëpp bu dee mel ne wàllu kayit nag wala wàllu ñu nekk ci bitim réew loolu dañ ciy yëngu dañ ciy yëngu mm-hmm. waaw képp koo xam ne nekk foofu amoo kayit mm-hmm. war nga bëgg léegi mu xaw laa jafe mm-hmm. boo ñu bu soobee suñ boobu dina ñaan sangat bi moom képp ku moom lépp loo jafewoon day daal da ngay daal ubbeeku moom macha allah waaw bu ko seetee ba xam lépp luy gàllankoor ndax lépp loo gisee am am lu ko téye nday nday ñaan mooy seet waaw boo ko seetee xam lépp rek daanaka lépp day daal tawfeex dëgg la moo tax képp ku ci bëgg ay kayit daa nga bëgg am liggéey boo ñu contacté bu soobee yàlla suñu saxool den sedd bu ba inshallah inshallah rabbi waaw képp koo xam ngay dem ci gaal mm-hmm. digul mo kenn nak digul mo ko waaye képp ku ñemee dal ba bëgg dem mm-hmm. képp ko xam yalla yàlla dogal nga tak ko ci ndig gi dugg ci ndox mm-hmm. inshallah bi ta bu soo ko ñem soob na sa bakkan du ci dess macha allah lu mën xew kay moy da ngay ag arrivé ci jam ba nga ñibisi wat ci jam ba nga ñibisi wat ci waye nak mom bakkanam dess na fu mom bu soobee suñu bam doo ko dégg loolu moom lii tamit boo gisee ñu nga ko génne li ko wane dañ ci def preuve bu leer nañ ba tax ñu tax ñu nga ko génne def ko ay du nekk nag benn du ñaar ndax benn ñaar yomb mhm. xam-xam ba nga gën a xam ne dugg nañu Espagne ci jàmm salaam ci mhm. gannaaw yàlla ak yonente bi suñu sama doom bi gi bokk na ci li ñu jàllale mhm. amuñu te nañ ko dugg amuñu benn jafe-jafe am ñoo xam ne sax xamuñu ndox ay saa Tuubaa lañu maa ngi ñoom ñooyam xamuñu génn <laughs> ma génn nii sax fat naa ko leeral xam man yàgg naa di wax ci sa ci sa émission bi yow. dëgg la mais su ma juum benn yoon laa mos a génne comme ça génne image. bi mooy ñaareel bi. Mm-hmm. avant boobu daan naa génn naa ci yow nag lu bëri après. Mm-hmm. même boo xam mm-hmm. ma génne maa ma xam maam Góor Dieng mi sëñ ma ndax nit ki. soo ko dee woo di ko ñaanloo. waa nga di ko woo di ko jox sa xaalis. dina jaru sax nga kanamam. ba boo la naxoon sax maanaam yàlla te duñ ko def. <laughs> boo naxoon mën a xàmmee kat kii nii la mel. te mu nga dëkk sàngam bu fee day kooku day yow ma identifié loolu moo tax war a gën a tax sax man ma génn woo la tey mm-hmm. nii nañ def nañ ndax gars yu bëri xam naa dañ may dégg mais naa la woo ñu génn ñu waxtaan bu mm-hmm. fee ma génn image bu fee gars yi gis ma mm-hmm. gën a ma a ràññee xam ne man maay sëñ maam Ngor Jeen mi ñuy dégg ñu wax ak sëñ ci Ngoy TV ci làmb yi waaw man ma nekkee gars yu bëri wax dëgg yàlla tax ma génn sax dañ may woo wax dëgg fa yàlla dañ ma woo di ma mm-hmm. am ci man yaakaar mm-hmm. ca xamuñu ma ca gisuñu ma mm-hmm. loolu nag dafa nekk loo xam ne dafa maa touché ba tax damay gën a wane sama bopp gën a a gën leen a xam ne man maa ngi nii gën a teg ci aw yoonu jub képp koo xamante ne naa lekk sa xaalis bu neexee nga génne woo Moussa nga wax ko ko waaye képp ko ma Moussa nax waxal Moussa ngi noonu amut ñi ma ci woo tamit képp koo ci woo seetloo ma ca gisuma dara mhm. waxal Moussa so xamul dara dëgg la waaw ndax mbir dafa bëri moom ñu ci nekk mhm. te daa bëri ñu xam ne xamuñu mhm. bëgg a jàpp ñëpp dañoo yem te ñëpp yemuñu da nga koy Sénégal yi xamul wax ju bëri mën na Sénégal mën na wax ju bëri xam maam jëf preuve tey loo xam ne naa la ko sama téléphone bi laa génne nii ma wan la dugal lay audio nga dégg ñi ma seetal nga xool Mm-hmm. waaw mu nekk loo xam ak ñi ma ñaanal tamit ñu wér mm-hmm. waaye comme émission la mm-hmm. xañ looloo tax doo ko doo ko def waaye kon moo moo la loolu dëgg la waaw loolu bëgg nañ ko cee leeralaale rek macha allah macha allah jërëjëf bëggoon nañ ko leeralaale nee naa leen mu ngi nii di Touba Mbacké boo ko gisee nag jëm ji ragal na yàlla lool